ma expliquer euh, la la situation de la dernière fois. Hmm. maa ngi lay seetaan ce matin nga naan tudd nañ la si sax. Hmm. en fait on m'a fait un message en me abaa Aba Aba Aba Mbaye nga wax euh, Cheikh Tidiane Youm. Hmm. mu mu mu xool portable am est-ce que Khalifa était vraiment obligé. de de de en en en direct wala dafa subir la pression de Barthélémy Diaz mm. wala il ne voulait pas mm-hmm. prendre le risque de de que parce Diaz pense que euh, dafa tenir un double discours. parce que loolu am na am na une vraie raison bu ko bu ko bu ko motiver et c'était une raison très importante. pour que Khalifa Sall fasse cela. mais man ñun caaxaanatuñu dañuy liggéey. Mm. xam nga kenn duñu jàngal politique kenn duñu jàngal Sénégal lâché nga lu nga xamante ne xëy na ce serait difficile pour nous de le dire mais à partir du moment où où Idrissa Seck a déployé une stratégie parce que Idrissa li muy def yëpp c'est pour s'imposer entre entre Macky et et, et, et Sonko mais ñun si on a une ambition présidentielle la dernière sortie du président Khalifa Sall il a il est sorti pour asseoir sa personnalité son positionnement avec des idées fortes réconcilier les Sénégalais repenser notre économie une économie sociale solidaire plus ancrée sur l'humain nous avons des idées de nous avons nos thèmes de campagne pour fédérer d'abord notre électorat mateler son appel à la gauche pour dire que nañu àndaat tout ce qui est parti de gauche mais nous sommes en train de faire progressivement un travail qui nous permet d'asseoir notre candidature y compris le positionnement de Taxawu dans l'espace politique c'est pour ça que ce qui nous attend sur le ce qu'on fait on le maîtrise et on avance pas à pas c'est pour ça que c'était très important pour nous que malgré li ñu gis muy ñëw muy yóru yi muy ñëw on va faire face parce que on a notre mot à dire à ce pays on va faire face parce que li ñu dund xam nañ ko et que kenn mu def leçon si difficulté politique wala violence politique Khalifa Sall l'a vécu dans sa chair l'a vécu dans son être l'a vécu dans sa famille. mais mais mais expliquez-moi euh, pourquoi il a il a ressenti parce que d'intervenir en direct et de démentir Cheikh Tidiane il des choses qu'on ne plus passer Maïmouna il y a des choses qu'on ne plus passer si les gens pensent que on est dans la joute de laisser faire wala de subir c'est qu'ils se trompent royalement on va se battre mais vous êtes des alliés on va se euh, battre na xaar euh, ba Cheikh Tidiane yu mu mais et puis et puis euh, man honnêtement mm-hmm. dama foogoon ne Khalifa Sall dafa bëgg dugg ci émission bi et d'ailleurs il a même appelé avec son numéro loolu moo tax ma ne Cheikh Tidiane yu met le sur haut-parleur mhm. mais dis-lui qu'il en direct également c'était juste un rappel parce que su ma rappelé woon loolu mbir mi mënoon na demee na c'est très simple mais mu ah. ñun doot ñu punching ball kenn ku bëgg dóor dóor ku bëgg saaga saaga ku bëgg xas-xas ku ñu bëgg saam-saam ñu c'est comme c'est comme la dernière fois ñun on fait du monitoring sur les réseaux sociaux quand Ousmane Sonko soor ne am na benn leer yeewu ma on suit les réseaux sociaux pour l'opinion Khalifa Sall la saaga yi takkarnaas xas bi takkarnaas mais ñun on a un candidat à a son image à gérer de là on prend la décision ferme de dire que am na ñoo xam doot ñu ko bàyyi mu jàll. qu'est-ce qui s'est c'est que Cheikh Youm am na lu mu expliqué fii et tout d'un coup on a commencé di gis sociaux yi. échange hashtag Khalifa Sall taxawu rafetlu wu ko. a loolu moom Khalifa Sall rafetlu wu ko. je mm-hmm. t'ai entendu dire que ñun ñoo ko daggee non non hmm. parce que l'émission nekk di wax yëpp ce sont tes propos la transcrire voilà et quand je lui ai posé la question dafa ne en je je vais pas trahir un secret mais en conférence des leaders. Hmm. Khalifa Sall rafetlu ko. déjà de un xam nga la moo gën njëkk dangereux c'est que je ne pense pas qu'il soit bon pour un homme politique de sortir des délibérations privées. non il n'est pas entré. non non je lu Khalifa Sall mënti wax réunion en conférence des leaders ça reste en conférence des leaders boo génnee nga ni Khalifa Sall rafetlu ko. day mel ni comme si Khalifa Sall day désavoué Barthélémy Dias ce qui n'est absolument par le cas euh, et on a eu un échange et tout donc coup Khalifa Sall man m'a m'a appelé parce que on voulait un contact ici je lui que man sa sa frère laa xam moo fi nekk je apple appelé comme par hasard mu nekk en studio et j'ai dit Khalifa dafa soxla am lu mu ko dee émission bi et Khalifa Sall l'a appelé euh, directement mais bi nga ne Abba ah nos amis du PUR ont pensé que man maa woote wala man maa truc oh c'était c'était pas ça et c'était pas méchant contre Cheikh Oum aussi parce que c'est quelqu'un de très courtois et de très correct euh, très raffiné koy tooñ tout le temps ni tubaab la mais si sunu liggéey franchement il des choses qu'on peut se permettre de faire passer sur les réseaux sociaux. mais l'enjeu est-ce que l'enjeu c'est une vigilance digitale. Euh, non bu ñuy mener et c'est pas ça l'enjeu était important c'est-à-dire que Cheikh Tidiane Youm dise que en réunion des leaders Cheikh euh, Khalifa Sall rafetlu ko c'est-à-dire ça peut braquer Barthélemy c'est peut-être loolu moo tax Khalifa réagir rapidement mais bien sûr moo tax man la on fait une veille vigitale vigilance vitale c'est pas le moment pour nous suñu électorat tas pour nous de de doot ñu nangooti nit transféré ñu sax ay souci wala sax ay problème maanaam damay jël benn affaire rek sànni ko ñële ñu jaxasoo seen biir wala ñu reyante seen biir on va pas l'accepter c'est le moment pour nous de de resserrer nos rangs pour nous waxtaan suñu biir pour préparer combat yi nekk suñu kanam et ñun li ñu bëgg nëbbu ñu ko mooy on veut candidat et on prépare notre candidat comme je l'ai dit li ñu si xaw naqare tuuti mooy que rien ne nous prouve que Khalifa moo ko wax en réunion Candé leader et on aimerait que yenn délibération yi mu mën a rester dans le cadre privé bu fekkee nit ñi dañ koy wax aussi ñun on est vigilant sur l'image notre candidat et on laissera plus certaines choses passer.